gan gi Ibrahima Sall Wuyo ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen bu baax a baax yow yaa njiital ASRED di kuréel gi nga xamante ne moom mooy taxaw euh, ci lii nga xamante ne mooy ak ak yëlefu ñuy mbaxane wala boog ñu caabi féetee ginnaaw. lii xew ci dëkk bi tey ñëpp di ko waxtaanee muy faatu kii di François Mancabou euh, ñu njort ni kon dafa bokk ci ñu ñu duppee force spéciale euh, yow en tant que njiital ASRED d'abord naka ngay euh, jàngate faatu gi ki nga xamante ne euh, ci biir prison euh, la faatoo. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm ci ñëwaat ci version wolof bi. Mm-hmm. balaa may sori ngeen may bu nuyu suma benn promotionnaire suma Serigne Serigne Abdoulaye Jaxate nekk cadre nekk leader politique fii si Rufisque nekk koo xam ne. dafay bàyye xel une attention particulière euh, association bi nekk nit ku baax a baax a baax koo xam ne day déglu bu baax di ñu conseil mm-hmm. bu ñu amee opportunité yi mel dafay jaadu vraiment ñu remercier leen mm-hmm. bu loolu weesoo li nga xam ne moom moo xew nekk ne loo xam ne naxaru xol rek lañu ñu ci am par saabu bu kenn faatoo si suñu njaboot te mu nekk koo xam ne caabi def ko féete woon ginnaaw loolu daf ñuy naxari bu baax baax a baax a baax par Sénégal lieu de privation et de liberté yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk suñu jàppee nit ñi ñu leen fay garda bi mm. dafa nekk ay bërëb yoo xam ne non seulement dëppawul ak euh, yoon répondre aux normes mais dafa nekk bërëb yoo xam ne souvent dafay tilim dafay am xet goo xam ne xet bu doy waar mm. te ñu jàpp nit nit ki dafa def obstruction aux règles maanaam dafa jalgati su société bi ñu yóbbu ko rek pas pour jël bakkanam mais pour yar ko par rapport ak faute bi nga xam ne moom la def loolu nag dañu xamul lan la ci jël bakkan lan la siy ute ba nga yeew benn suba rek ñu ne la nit ki dee na si circonstance yoo xam ne circonstance yu douteuse la yu metti yu torturer nit ki xoxotal ko ba jël bakkanam ci mu pour mu avouer benn mbir dañ koy dóor dañ koy mbéj dañ koy yeew loolu daal ñun en tant que aseret mënuñu koo rafet Hmm. kon euh, ndax gëm nga bu baax euh, version bi nga xamante ne procureur moom la wax ne ki démb ci ngoon ne dafa doon mbëkk miir bi ak gërëy ba mu daal di yegg foofu. xam nga procureur la république moom dafa ne yor na vidéo boo xam ne def na fukki minutes ak ñett. Hmm. moom moo wax loolu mu ne waa ji da doon mbëkk gris. Hmm. ndax xel nangu na Sénégal réewu de boo xam ne da ngay taxaw di mbëkk ay gris nekk ak say co-détenu ñoo xam ne dañ leen tegandoo loxo alkaati bi toog di loxo nga mbëkk gris. ba ñàkk sa bakkan ndax loolu xel nangu naka benn nga ne yow yor nga vidéo bu def fukki minute ak ñett ndax vidéo yi dafa doon sur dafa doon caméra waa ji muy mbëkk boppam ñu toog di ko seetaan loolu la tubaab di wax non assistance à une personne en danger kon procureur moom ay indice la laaj ay enquêteurs muy la police et la gendarmerie moom mooy mesure des poursuites moom mooy le procureur de la république moom mooy contrôler la détention comme moom am na ay preuves yu leer ne non seulement assistance à une personne en danger dafa am alkaati yooyu daf leen war a jël mu teg si ñoom ay daan parce que wax ji mu wax askanu Sénégal yëpp xam nañ ne nopp bu bu feebaree nopp nu wax bu feebaree nopp yi koy déglu wér te suñuy nopp baax nañ te xam nañ ne procureur bi su rëram rek la nekk. loolu mu wax du wax ju taxaw tey du wax ju taxaw suba. Hmm. mais mën nga nangu tamit ni yenn saay loolu mun na am ci prison ay nit yuy doxalee nu ni mel. parfois ngir kon xam nga xam nga xam nga man damay fier ne man ancien détenu laa parce que reyu ma nit jaayu ma yàmbaa mosuma dem kaso. ngéej laa juddoo fi laa màgge fi laa yaroo yóbbu nañ ma rësal bàyyi nañ ma bi ma amee juróom benn weer ñu fàtte ma kaso rëbës ba ma am deux ans dix huit jours si lu sama yoon nekkul ma gis foofu ay xale yoo xam ne dañuy mbëkk miir yi bu ñu meree jël lañ set dagg seen yaram ba seen sidditu yaram di feeñ. Hmm. bu ñu paree dañuy dugg si duus bi sangoo ndoxu xorom naan seen kaafu te kaasu café Touba naan jërëjëfa Serigne Touba te mosuma gis ku si dee. Hmm. maka bu man dama ko xam man militaire laa woon def naa quartier servir naa Sénégal man maa doon assistant général bi doon tawal avion bu Abdoulaye Wade ñu koy wax le général Madické Seck. Hmm. donc moom dafa subir formation boo xam ne formation bu baax bu dëgër kenn mësul dégg ñu ne maka bu armée branlé na wala def na naka sudul noonu wala amul na comportement boo xam ne quartier dañ koy rajee wala yooyu te ñëpp xam nañ ne armée du baale dara hmm. kooku nga yeewu suba giñ ko loo xam ne gëlëm goo ko sëf du dox te mu am jabar am doom mu dee nga génn si télé bi ci kanamu opinion nationale ak internationale niiw bi nga xam ne dafa dee mënul défendre boppam nga continuer yow di teg ay tuuma yu méttee méttee métti si kawam alors que moom mënul dekk ne man procureur man li nga may tuumal nii defu defu defu ma donc kon loolu ñu wax dafa nekk loo xam ne dafa oyof trop trop trop pour monsieur François Makabu ñàkk ci bakkanam donc kon procureur bi vraiment sorteem sorti bu maladroite la nit ñi d'accord ñu ak moom ci ci ci doxalinam d'accord ñu ak moom ci waxinam par réewu démocratie lay nekk dañuy exprimer wu librement quand soit le prix à dégg nañ ci société civile di ci addu di sàkku kon yëf yi daal di leer yéen waa ASRED ban taxawaay ngeen ci na mu am. waa xam nga ASRED moom taxawaayam moom benn rek ci réew mi yéen xam ngeen ko. xam nga kuréel la boo xam ne taxawaayam mooy dimbali ñi caabi féete ginnaaw di leen jàppale moo am hmm. beneen kuréel bu nekk Sénégal boo xam ne nguur gi moo ko fi teg jox ko koppar yu bëree bëri ñu koy wax ONLP muy observatoire national des lieux de privation et de liberté ñi nga xam ne seen liggéey mooy saytu ñi caabi féete ginnaaw ndax seen nekkin sàmm nañ seen àq mais kuréel googu ndax yéen woo ngeen leen téléphone ndax ñoom ñi ngi dem ci média génn nañu àddu ci mbir mi génn ñu àddu ci mbir mi parce que biir ministère de la justice lañ ne dépendre ci nguur gi kon kuréel googu dañ ko war a jël tey dénk ko ñu mel ni waa Amnesty ñu mel ni waa ASRED parce que ñun tey jii ñuy liggéey si seen place tey amuñu salaire kenn fay ñu état subventionné wuñu kenn joxuñu dara rajo laay rajo laay wax je défie quiconque que ce soit. Hmm. donc kon ñun suñu taxawaay bi ñu amoon démb moom la ñuy amaat tey am ko suba maanaam mbir bi ñu lënkaloo ak waa Amnesty Sénégal muy section Amnesty bu Sénégal bi Seydi Gassama jiite wax na ko démb. ak yeneen kuréel yoo xam ne ñi ngi ci réew mi te fa politique gu ñu ànduñoo parti politique waxuñu waxu politique ñu lënkaloo boole suñu doole jël ay avocat lu mu laaj ci koppar dinañ ko ut jox leen daggal leen biee ñu def benn plainte conjointe yóbbu ko euh, déposer que ci kuréel yi nga xam ne ñoo gën a mag ci àdduna day sàmm ak ak yelleefu doomu aadama parce que seetlu nañ benn recrudescence des cas de torture fii si Sénégal nga xam ne nit ñi dañuy dee comme ay weñ comme ay muus loolu nag moo mënatul a continuer fii si réew mi te lu mu laaj dinañ ko def te famille détenu yi ñu ngi leen di woo ci benn manifestation boo xam ne dinañ leen wax date bi élection législative yi nga xam ne moom la ñu jëm nañu ko boycotté tant que voté wuñu loi boo xam ne dafay autoriser ñi ci abi féete ñuy woote bu ko defee ñu mën leen bàyyi xel mu ngoog euh, gannaaw mbiru François Mancabou beneen cas muy Pape Mamadou Seck mi nga xamante ne euh, officion wala bokk version officielle bi dañu jàpp ni kon dafa rëcc euh, ci pavillon spécial lu ko jiitu ñu déggoon rumeur yi jàpp ni dafa faatu lan la ñu mën a gëm jamono ji bu dee évasion la tamit lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga xam nga xam nga ne dafa xam nga ne dafa faatu xam nga loolu c'est c'est c'est exagéré parce que man xalaat naa ne moom directeur administration pénitentiaire bañ même bu ko ko jiitu réew bi santoon santu ko nangu hmm. nu doomu aadama foor na fooraay goo xam ne nit dee si kaso nga ne da nga koy yóbbu suul ko nëgg ko ay mbokam naan dafa rëcc loolu kuñ ko santoon doo ko def parce que loolu dafa diis li xew mooy waa ji ancien militaire la am na expérience am na feebar bu metti boo xam ne juróomi at mi ngi koy faju ci biti muy problème mu rein Mhm. garde ya ko doon garde dafa am lu ñuy wax sécurité active am lu ñuy wax sécurité passive sécurité active moom moo concerne les agents pénitentiaires muy le personnel pénitentiaire sécurité passif mooy grille yi bunte yi chemin de ronde fay nag am na au niveau sécurité active bi muy agent yi faay am na si sécurité active bi xëy na exploité nag dem na yoonam loolu nag bu amee dafa am benn décret deux mille un tiré trois cent soixante deux du 4 mai 2001 ce décret là moom moo encadré bépp loi buy bu bu bu bépp loi wu prison jalgati wala ay njuuj njaaj bu amee décret boobu moo ne daan yi la teg ñoom garde yi nga xam ne nag ñoo doon garde ah ñoom seen kilifa nee na tijji nañu l'enquête ci ndigalu ministre bi l'enquête boobu nag mi ngi mi ngi nekk en bés bu ñu situé responsabilité yi ñi nga xam ne dañ leen fay pour ñu garde ñoo xoolee ba bu dem ñooñ lañuy teg ay daan ci seen ci seen loxo te liñ ciy ragal mooy rëcc na mais mu ñàkk bakkanam si àll bi parce que dafa feebar feebar bu méttee méttee métti. ba hmm. ay mbokkam di ko jooy. donc kon rëcc ba mu rëcc tey bu ko alkaati yi daxee wala gendarme mën nañ ko tiiri fital mu dee. Hmm. moo tax ñun suñu communiqué ñu koy ñaan moom Pape Mamadou Seck mu ñibbise waat ci kaso bi ñu faj ko ndax dafa feebar. daw hmm. kaso dafa métti te am na yeneen daan yu mën a tegu si sa kaw kon li ñu mën a jàpp version officielle bi mooy Pape Mamadou Seck ña ko doon garder daal dese nañ def seen liggéey ba mu rëcc kaso bi. loolu mooy li nga xam ne moo am. ñu wax ci conditions yi ci kon kaso yi ci Sénégal euh, gis nañu ay bis yi wees euh, ca prison bu Ndar Géej euh, foofee tamit détenu yi ñu ngi nekkoon ci grève di ŋàññi anam yi nga xamante ne moom la ñuy dundee loolu yàgg nañ koo dégg moo ne de gis nañ ni yenn saay ñu inauguré ay prison am na sax Sébikotane mi nga xamante ne tàmbale naa dox ndax jàpp nga ni jéego am na ci at yi mujj. waa xam nga damay wax ne taskatu xibaaru Sénégal nag du ñu amuñu ay journalistes yoo xam ne dañuy def investigation yu xóot ci mbir man boo leen di wax naan kasu sebi xotaan nguur gi moo ko tabax wala yu mel noonu man ay retaan daf may jàpp nguuru Sénégal mës sa jënd benn saaku ciment bu junni tabax tabax tabax benn kaso fii Sénégal dafa war a leer ci bopp nit ñi kaso boobu mbirum Hissène Habré moo ko taxoon jug état tabaxu ko tey taxu ko tabaxu ko suba li nga xam ne nag mooy mouvement d'humeur yi di am ci prison yi loolu lenn rek moo ko indi mooy longue détention ak surpeuplement parce que nag waxtaan wax dëgg sala ñun dañu visiter kaso yi di dem di xool gis nañu soppite yu rëy rëy rëy am na ci prison boo dem tabax nañ fa ay néeg def nañ fa ventilateur yokk nañu dépense ba pare dépense bi pour xale bu nekk la nga xam ne moo doon sa ratio journalière ñaar téeméer la téeméer la ak ñaar fukk ak fukki dërëm mu dem téeméer ak ñeent fukk ak fukki dërëm mu dem téeméer ak trois cent cinquante mu dem ba ñaar téeméer mu dem tey jii ba ñaar téeméer ak ñaar fukk ak fukki dërëm loolu ay jéego la ci wàllu lekk gi wàllu kusaay defar nañu ay lal ay yooyu mais nit ñi bëgguñu loolu kaso du kër du dëkkuwaay ña fa nekk lay lekk ñu jooy ñu xiif jooyu ñu naan lenn na rek kaso yi ma dem boog visite que ñoom samay nawle lañ te ñu ngi déglu émission bi te du ma wax luñ may xeebe ci réew mii kaso yi ma dem dugg fa détenu yi génn ñu wax ma dégg dañ ne ko monsieur Sall président ñun lenn rek la ñuy jooy mooy longue détention téye ñu fàtte ñu ci kaso bi bëgguñu ñu rey ak kas tàncaloo bu métti bi ñuy tàncaloo ma ne leen loolu njëkk war a dégg dinañ ko dégg parce que juge d'instruction yi dañuy def liggéey bu rafeta a rafet def seen enquête woo détenu bi déglu ko entendre ko ba jël seen dossier ne ah procureur ñun de pare nañ lan ñu santoon delloo nañ la ko par procureur mooy maître des poursuites mooy joxe ndigal ñu place su mandat dépôt bu dossier bi demee foofu procureur amul ay bëkk-néeg yu doy amul ay substitut par Sénégal li ñu fi am si juge yëpp matul cinq cent trente magistrats pour dix sept millions de Sénégalais li ñu fi am ci avocat matul cinq cent avocats li ñu fi am ci greffier ça fait quatre cent soixante quinze greffier il or a hors hors hiérarchie premier grade deuxième grade sup juge suppléant ah magistrat yi nga xam ne dañ leen affecté dans l' administration centrale loolu nombre bu ndaw ndaw la cabinet d' yi dañu feesax ay dossiers boo demee ci juge Maham Diallo bureau yow da ngay yéemu ci yàlla dafa fees ay dossiers xale yi mënuñu leen àtte ndax état recruté wul ay magistrat par fac droit dina produire chaque année plus de deux cent maîtrisables mu am paradoxe bu rëy. ñu am déficit u magistrat loolu moom mooy jafe-jafe yi am ci kaso mais en terme de réalisation ko waxal yàlla rek di nga xam ne def nañu effort yu rëy rëy rëy ci dans toutes les prisons du Sénégal mais tey li yàq loolu yëpp muy tëy nit ñi ci kaso bi fàtte leen fa seen i këyit am na xale bu nekkee camp pénal dafa def appel depuis 2012 appel mooy ñu àtte la nga ne man àtte bi ñu ma àtte neexuma dama bëgg beneen ëttug àttukaay àttewaat ma nga bind appel ci 15 jours kooku ba mu defee appel 2012 ba tey jaata at la kayit ga dafa réer ci tribunalu Ndakaaru bi je défie quiconque que ce soit ay juge yu ma ko woo leen téléphone dem naa démarché ko maanaam dossier bi dossier introuvable la xale bi xale bu ndaw la ñu koy wax Papa Dieng mi ngi camp pénal tëdd di di nelaw te boo demee Mbour xale yi tamit noonu la demee dañ leen war a àtte àttewu ñu leen ñi ngi foofu si kaso Mbour a nekk situation longue détention nga dem Ndar loolu moo fa am kaso boo dem loolu moo fa am te loolu responsabilité nguur gi la. ay nit nag boo leen jàppee ay loi nefi yoo xam ne dane nit ki bu defee lii lii lañ koy tëj nga yóbbu ko kaso fàtte ko fa comme ku yeew saxaar mais loolu vraiment c'est laaj si réew moo xam ne dañ ne réewu démocratie la hmm. réew moo xam ne hmm. fu ne ci àdduna dañ naan réewu démocratie la réewu démocratie combat nag dinañu sax porter et porter plainte état du Sénégal ci longue détention yooyu nga xam ne moom la euh, détenu di subir biir prison dikk ko tëdd kaso yu méttee méttee métti loolu rek moo indi criminalité bi am fii par bu ñu génnee ay sauvage la ñuy doon ay rancune la ñuy doon parce que amul benn programme hmm. bu leen tegal pour réinsertion sociale parce que nguur gi mës sa jox administration pénitentiaire benn ñàddam nekk lii maa ko def ci réinsertion sociale. yow yaay njiital ASRED kon sëñ bi Ibrahima Sall ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax. jërëjëf.